fii si Gambia xale Gambia yaa ngi nii ñii suma ay waa kër leen ahankeñ ñu ne doom si juddoo rek war a xam cosaanam ñu ne ko xamut li nga doon dafa fekk nga gën see ñaaw ñii a xam li ñu doon ñii ay doomi olof leen faatu Sow naka nga def jigéen ngi nii ahankeñ xool leen ko xool xale bi ni mu rafetee am Njaay yaa ngi nii Njaay jaata Njaay mu ngi nii kooku mooy faatu Jaw ne ah gis ngeen ko ñoom ñaar yëpp doomi olof leen toon leen ma xool toon leen toon leen waay ay toon leen waay a cum doomi olof yi nice na toonaat leen toonaat leen aca wax leen gars yi déggal leen génne leen naka la waxaal ma dégga ah. yow noo tudda ah? ah dafa ruus yow ah? tey cosaan nga def అహంకాయ నాశనమే నోపే అలా యాగిని